asalaamaaleykum mbokk yi Mbacké ak waa Touba di jiital ci nuyoo bi sang bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ndoxu Touba ak ndoxu Mbacké dina jóge Lac de ñëw ba fii ku nekk Ndakaaru maa nga nekk feneen ndox bi ngay am dinañ ko am fii ci Touba te du yàgg loolu mooy engagement bi may njëkk a jël ci département de Mbacké munoo wax dëkku maam borom Touba ak fi mu tegoon xam-xam te waxoo njàng surtout waxoo njàng boo xam ni ci alxuraan la jëm ak diine la jëm kon programme modernisation bi nga xam ne am na fi dinañ ko accélérer la xam ni jox nañ ko sëriñu daara yi ren six milliards yi deux mille vingt dina doon dix milliards. yéen jigéenu Mbàkke ak Touba maa leen di nuyu. di sant bu baax di leen gërëm. xam nañu seen i yitte. entrepreneuriat fii am na fi solo. artisanat am na fi solo. marché yi war nañu leen a moderniser. waxatuma financement wu deux cent mille. dama bëgg jigéen ñi mën li góor ñi mën ci biir kër yi xam ngeen ni trois cent mille personnes ba quatre cent mille personnes ñu am bourse de sécurité familiale dinaa ko yóbbu ba cinq cent mille cent mille yi ba cent cinquante mille yi ñu jox ko mag ñi bu boobaa ñi doon am démb ak barki démb dinañ continuer am waaye mag ñi nga xam ni seen doole wàññeeku na ginnaaw bi ñu leen di faj te duñu fay dara ni mu amee léegi dinañu fexe ba mag ñooñu mën a am ñetti weer yu nekk loo xamante ni dinañ ko mën a suturloo. fonk réewam baax na sàkku réewam